Euh, dafa am benn mbokk moo xam ne ràññee nañ ko ci internet bi loolu ñu koy wax Cheikh Ahmed Cissé mhm. euh, ñu koy gis ci communication muy muy jàngale mais ni mu koy waxee ñu bari am ñenn ñu koy ñaaw la am ñu ci ànd ak moom maanaam ci langage yi nga xam ne moom la utiliser est-ce que yow gis-gis boobu nga ni booy jàngale da war a. waa xam nga dégg naa bër ki démb ñuy xaw a laal sax euh, sëriñi télé yi. boobu idée am na lu ma ci ànd ak moom ci noonu muy laale ñeen ñi. mu doon wax ci wàllu télé yi waaw. waaw waa firikatu télé yenn yi. ni muy waxee foofu ci idéologie boobu ànd naa ci ak moom. parce que bala nga naan nit solal yére day fekk ngay sol yére waaye yow boo jógee defi neex boo tegee télé bi duñ bëgg a rey ñun man yooyu bokkatuma ci. kon da ngaa gis ni loolu muy am waaw loolu ànd naa ci moom mais beneen beneen part bi ànduma ci ak moom mooy mën nga wax. da ngay faj wàllu awra mën nga ci waxtaan. mais mu ànd ak tuuti ma daal. ndax du caageenu mm, bu doon sunu yeneen yeneen réew yi la mën nañ ko. parce que ñoom seen culture may na leen ko. mais ñun sunu culture réew. par rapport ak sunu kilifa diine yi fi ne. nga xam ne ñoom ñëpp ay déglu sunu émission yi. maanaam ñuy dégg yenn wax yu xaw a tegginiwul yi maanaam cër la bu ku ne am. waaye du cër bu nu war a fësal di ko waxee noonu parce que maanaam xam nga benn mag daf ma ne dafa am baatu olof yoo xam ne baat bu déformé wu la parce que dafa am saaga boo nit ñi wax naan nangamal sa ndey saaga boobu ñëpp dañ koy wax mais benn mag ne ma wax boobu du saaga mu ne ma parce que ki nga xam ne moom moo tal sa yaay moom moo tal nekkat sa yaay ci biir kër gi di ko toppatoo <laughs> mhm. mu toppatoo ko ba tax sa yaay. Uh-huh. tardewul defiwul lu doyadi. kooku moo dafa tal sa yaay. mais mais loolu dafay. mais dafa doon baat boo xam ne koo ko wax dafa ñaaw. mais dafay dépendre nag ci kii wax ci contexte bi nga ko wax foofu laa bëgg a waxee. Uh-huh. maanaam. Uh-huh. mënoon mën na wax jaay produit am. te sunu doom yu ndaw ndawaan yi juddu duñ ci am waxin bu ñaaw wala déggin bu ñaaw. parce moom mi koy wax tey il est jeune a ngi tàng muy waxee deretam mais suba il sera quelqu'un bu àddina yi déglu bu boo xam ne àddina dañ koy dëgmal dañ koy bàyyi xel mu war a doon kilifa goo xam ne nit ñi dañuy roy ci moom te dafa am nooy nooy doxale sa ci sa ci sa ci sa ci sa àdduna ëllëg da lay topp man ku ma doon fay milliard am na terme boo xam ne kenn du ma ko wax loo parce que lu may man di def maa ngi bàyyi xel kilifa gi jël ijaaza bind ko jox ma ko maa ngi bàyyi xel turu kilifa gi nga xam ne fu nu ma nee Cheikh ne Cheikh Al Amin maa ngi bàyyi xel njabootam gi nga xam ne fu nu toog ñu ngi déglu samay émission ak ñi nga xam ne yàlla boole nañ ma am na loo xam ne dara jaru ko. léegi am ñoo xam ne dañoo jàpp ni tamit manqué maanaam teggin gi moo des est-ce que yow gis-gis boobu nga. loolu tooñ la dugg ci na ko da ngaa teggin parce que séqunu ko. séqunu bu ma ko doon conseiller en tant que frère. naa ko ne li muy jaay baax na hmm. am na xam-xam ku ko déglu xam ne am na ko yàlla may. Hmm, li muy jaay moom jàpp ni. waaw jàpp naa ne am na lu ko yàlla may. Hmm. ndax euh, mag lu mu nekk ren ba déwén. su dul dëgg ak xom ni muy waxee kon dootu ko wax te it gis naa ne yeneen sëriñ yi par rapport ak yeneen boy yi ñaan fii moo leen gën a am charisme ci li muy wax ñe boo ko dégloo da ngay xam ne am na lu ko yàlla def ko gën a ñeme waaw moo leen gën a ñeme li def ñi ci des dañuy ay kii lan rek nu mu tudd rek dañuy naxe ñu ci bari dañoo am dañoo am ñu leen mën a toog ci yi woo leen am ñu leen mën a publier rek mais ñi ci bari xamuñu dara je le défie xamuñu dara kooku je le dis <laughs> macha allah am na hmm. solo yaakaar naa ni du ñëpp nag hmm. am na ñu yàlla may am nañu ci yàlla may am nañu ñu yàlla ñu ci bari. mais ñu ci bari. seen baatin des na. est-ce waaw. macha allah waaw yaakaar naa am na solo boo amee loo ciy dolli rek. ñoo xam tey. koo ci ne lan mooy arsata xamu ko. waaw damay gis ñoo xam ni tamit dañuy toog ci télé bi mais doo dégg benn baatu xam-xam. ci wàllu koo ci ne lan mooy arsata xamu ko arsata maksubun alhamdu waxta dan sax yun koo ko ci laaj xamu ko. foo leen dégg daal gis naa koo ci ne Cheikh Jakasis xamu ko. koo ci ne euh, Samsul Bilaat xamu ko. koo ci ne Barhut xamu ko. koo ci ne wala maata bayana xam ko koo ci ne euh, maanaam xeeti secret yu bari xamuñu ko mm-hmm. Mm-hmm. ci ne ñaata façon xaatima am xamu ko mm-hmm. ci wan xaatim bu dam mënu koo jubbanti ci ne rëddal xaatim mënu ko li bari na ci ñoo xam ne li ñu xam man sunguf nii maa ngi koy wane mais man li ma ëpp lu may liggéey alquranul karim yaa ngi ma fekk samay kurus a ngi nii ak hmm. samay bagage fii laay toog bis di di zikr maanaam hmm. euh, maanaam am na ñoo xam ne sax mën a génne turu yàlla hmm. maanaam mën koo génneel xuddaam ak raw xaam mënuñu ko tey jii boo doon wérd ba juum ci biir wérd bi noo koy jubbantee am na ñoo xam ne mënuñu ko turu yàlla nag boo koy wérd day fekk nga xam boo ci jamajee wala bu ëppee noo koy wàññee wala bu wàññikoo noo koy yokkee est-ce que am na ñoo xam ne boo leen fekkoon tey julli sax ñu commencé di julli. Uh-huh. boo ñëwee xamoo nooy duggee ci julli gi. Uh-huh. dëgg yooyu yëpp nag bu ne da ngay jéem a yëngu ci wàllu turu yàlla xam ko day baax. Uh-huh. am am sell gu mat sëg. walla bu dee zul zulmaan ya ngay liggéey nga koy bëral bañ a fen di wan ñi ñi ne alxuraan laay liggéey te zulmaan ya ngay liggéey. am na ñu bari ñoo xam ne fii. zulmaaniya la ñuy liggéey. Ah. xamuñ dara ci nooraaniya. ah duñ ko wax. buñ ko ku ko mais xam ñaari baati alxuraan wala nga xam euh, ñaari ñaar dem toog déglu ci ab rajo ñu wax ñaari ñaari ba moo ci alxuraan wala ñu wax ko ci arab nga ah. capté ko ñëw di def émission di ko rey nit ñi da cee bari. <laughs> Hmm? dëgg man yooyu néew ma ci. Ah. firiw ma gàmm firiw ma alxuraan baatin laa Oh. bu wér topp mag ñu wóor ñu sell ñu xamal ma ko oh. boo tey jii bi nga ñëwee sama kër yaakaar naa ne aw ma sax jot gis nga ñin ñaa ngi ci biti di ma xaar dëgg wala fen waaw aw ma jot mais lii mënut a ñàkk parce que damay waaj tukki te dafa am li continuité la ci ginnaaw njaq yi dañ koy continuer bàyyi ko fi oh. ñiy bind dañuy continuer di bind kii def affaire cuuraay yi pour dindi affaire rab daf fii nekk sama rakk bi laa koy bàyyeel néeg bi duñu dindi li fi ne dañ koy saxal numéro whatsapp yi day dox fu nu mën a ne ci àddina dañ koy continuer wéyal oh, oh. mais dañuy ñaan yàlla dem ci jàmm ñëwaat fekkaat nit ñi ci jàmm macha allah may wax nit ñi ne leen bu leen nax seen bopp foo dem faju woo fa boo fa delloo yaa nax sa bopp dëgg la beneen bi seet yombul oh, bari na sëriñ bu la naan ma seetal la koo ne seetal ma mu man boo ma wooyee rek boo dugalee sa ci séance yi laa lay seetaatal mm-hmm. koo ne seetal ma mu toog benn une heure de temps deux heures de temps seetalu la te nga jox ko sa am na ko muy wëri pour mu seetal ko mm-hmm. dégg nga wala déggoom mu la lu dafa bari sëriñ soo xam courtier lañ dañoo am kuy ne ci ginnaaw bu demee man nag loolu bu ma ci naree fekk man la demal seeti diw mm-hmm. mag du nax boppam dëgg mbir mi bu dul sa métier teel cee faxas sa loxo dëgg waaw macha allah. Mm-hmm. macha allah yaakaar naa ni am na solo leeral nga lu bari loo xam ne bëggoon nañ ci leeral xam naa dañ lay bàyyi rek li ngay tàggoowee ba. waaw li may tàggatoo mooy ñaanal yàlla sunu réew mii. Mm-hmm. di Sénégal yàlla def fi sutura ba kenn du tal di am jafe-jafe. Mm-hmm. ñaanal yàlla boroom réew mi nga xam ne moo nekkandi ci bopp réew mi. yàlla yokk xéewal yoo xam ne dina tax bala yu mandat bi jeex sénégalais yëpp kontaan. Mhm. su yàlla dogalul mu war a doonaat président yal na yàlla def ci xelam mu teel a wax ne man kat mënu koo doonaat bàyyi naa. Mhm. su yàlla dogalee ne Sonko moo war a doon président yal na ko yàlla jox nguur gi ci lu gën a gaaw. Mhm. réew mi ñun ñëpp a ko bokk. nul ne indispensable. kenn nekku fi koo xam ne soo fi nekkatul réew mi du dox. ndax tey. am na mag ñu ñu yàlla boolee loon ñu àndoon ak suñuy maam ñaanal réew mi ba réew mi agsi fii tey uh-huh. ana yonent bi ana saxaaba ya mu àndaloon uh-huh. ana Seydil Hadji Malick ana maam Cheikh Fuuti yu uh-huh. ana maam borom Touba ana sunu maam yu baax yooyu ci réew mi ku ci ne bés ñëw na lu wuy ji yàlla te taxul teewul sa jëmm des fi sa sa jëmm dem na waaye sa ruux a ngi ndax ku am jaaxle dem wuti leen dëgmali leen sàbbaali fa yàlla kon may ñaan ñu ndaw ñi ñu bàyyi loolu xel ndax mag ñooñu li ñu am ba tey nit ñi mën leen di fàttaliku di dem di leen ziyaar ak di ñaani ci ñoom yàlla mhm. jikko ju rafet ju nu wanoon yàlla la jikko ju rafet ju nu ànde woon ak askan wi la may ñaan képp kuy jullit di wax ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah xam nga dem na ba alxuraan ci ci xadis yàlla wax na ne dox maanaam euh, laa yëxta baax da ku mbaax dan bu leen di jëwante maanaam jëwante mhm. ñu bàyyi ko beneen bi euh, maanaam dox bu gaaw fërëx-fërëx day dindi taaru jullit jikko ju gaawin gaaw a mer gaaw a gis sa bopp yooyu yëpp day yàq taaru jullit nanu fexe ba lu ñuy ñaan yàlla muy jàmm nañu fexe ba lu ñuy yóotu ci yàlla muy sutura yàlla na yàlla def jàmm ak sutura ci ci barke Serigne Abdoul Aziz Al Amin barke Serigne Babacar Sy sunu Serigne barke la Hadji Malick jàmm ak xéewal mucc gu rafet ci sunu réew Sénégal ñun ñëpp a ko bokk jërë ngeen jëf macha allah